waa Ada Fass a ngi noonu di ñëw ful bi yëpp Ada Fass lañ li ma la waxoon rek Ada moo deseel xale yi moo yoroo xale yi Ada mu jox xale fayu leen Ada Fass mu defal xale yi deseel na leen xoolal ma lii ñoo xamante xamoo leen ñoo xamante bokk leen ndey ak baay ñoo xamante leen gis ñu bàyyi lépp ne la topp ñu kenn ku ñu aada. waaw xool leen bi aada aada aada aada loolu góorgóorlu la koo xeeb. waay waay waay waay li oh, daw na yaram. xool leen bi ni ñu binaan la. la ilaha illallah. lamb jaa ngi nii. Oh. keroog ba ma demee ci ëpp presse. ki ma jàkkaarloo woon di duur. ñoo nekkoon moom. ma ne ko duur ma ne ko ah, yàq ñu dem tuuti ñu dem tuuti. amaat. waaw ma wax la li xew si autoroute bi. Ah, ah. policiers yi bi ñu nee jàpp Ada Fass. waaw ne jàpp borom mboote dañu téye li nga xamante ne moo di borom waaw ne Ada ne jàll ak otoom. dëgg la dëgg la ñu nga xamante ne moo di borom dëgg la. gaa ñu ngi ñëw. loolu ñu def noonu. waaw. gaa ñëw. Come on. Dakar ñu ñëw les gars. Yéen ñi ñu suivre sax bu leen ñëw. Ada Fass a ngi nii. Ada Ada Fass fii la nekk. Ada Ada baa ngi noonu. Ada Fass fii la nekk. Ñuy dugg ñu koy sën. Ada Fass fii la nekk. Ibrahima dawal. oto baa ngi nii oto bii ngeen di gis si la Ada Fass nekk moom mi nga xam ne moo war a jàkkaarloog Zoss tey Ada Fass a ngi noonu toog Ada Fass a ngi noonu toog si biir noonu. Ada noonu. lii daw yaram sama waa ji lii moom daw yaram trop. combat bi wax dëgg fa yàlla. gis ngeen gis ngeen oto baa ngi noon di dem war dugg biir stade tey tey la tey amaat tey la tey amaat tey tey lu waay doon jaay tey mu lamu te ku wante xasante beeg lépp tey la lépp di suñ duggee ci biir incha allah tey la ñu xam Ada lu mu waxoon sax tax dina ko def. gis na sëriñ bi sëriñ baa ngi nii sëriñ bi wàcc na sëriñ bi wàcc na. sëriñ bi dafa sonn si Ada Fass xoolam waajee ak Senghor yi. sëriñ bi wàcc na ñëwal nii si xar fuufa yi gis nga gis nga gars yi di xar fuufa yi nii ñii ñu ngi génnee butéel yi mënut a ñàkk ñu ngi génnee butéel yi lamb moo baaxoo ni mel di génnee xar fuufa yi mhm. ndax aar sa bopp la. aar sa bopp la de ñun ñi si topp sax ñoo war a alaat waxuma la ak ñoom moo tax moo tax lamb gis nga gis nga gis nga saafara si. amaat amaat ñëwal. amaat ñëwal. bu dee bàyyi sotteeku. gis nga waa na sotti bouteille bi amaat. gis nga ko. bu lii mooy làmb. lii mooy làmb. lii mooy rek amaat ak ak yu bari. bu dee lu ñu la digal di ko def. li ñu la digal di ko def. lu ñu la digal rek moom. di nga def. ak noo xamante defee it di nga ko def bésu tay bi bés la si bés loo xamante ni am nga yaakaar kañ boo ko defee di nga ci am ndam wala ma sëriñ bay si bunt bi moom lay wax léegi ak ay brin almet ay brin almet lay génnee di of di of sunguf si sa sunguf soos mi bés waaw bar lii mooy cosaanu lamb dëgg dëgg dëgg lamb lii la gis ngeen loolu ah non narani narani ñëwal nii non Thank you. amaat amaat ñu dem ne le lu am si oto bi yëpp xaratu fa la. oto bi yëpp. oto bi yëpp xaratu fa la. xoolal xoolal waa ji dugaat na mën a dugg si biir stade bi. xoolal ah, bi. Arafa a ngi noonu si biir oto bi. Arafa a ngi noonu si mbëri supporters yi yaa ngi koy wax ne mbir mi jeex na. booy di ko encouragé yore la ñuy topp yaa mën yaa ëpp doole. tey boo xoolee li nga xamante ne moo topp ci mboolo moom moo nekk ci yundaay bi. Mhm. bi moom moo nekk ci yundaay bi. bu weex bii di dem nii moom moo nekk ci yundaay bi. ma ñëw. ah. waaw rek noonu. xoolal sëriñ bi si kanam. sëriñ baa ngi noonu. sëriñ bi moo génnoon sànq di wis moom mooy toog si kanam oto bi. sëriñ baa ngi noonu. sëriñ Ada Fass baa ngi noonu. sëriñ Ada Fass baa ngi noonu. xanaa ngi noonu ci biir oto bi. maa ma jël quoi. da ngeen seet noonu. tey jarab fu ne la koy joxatee. sëriñ bi moo ngi noonu. mbër a ngi noonu di duggu moo dugg. Mhm. mooy oto bi def ah, débat débat bi oto bi def Dakar waas. ku bëgg image yu rafet rek dugal Dakar waas. ñu ñu ñu <laughs> ñu